imam euh, ban gis-gis moom nga am ci maanaam nit ñi ñu gis ñu réclamé ne ay prophète lañu di amal ab euh, julli ci kàllaamay pulaar ci fële nga ci ni moo di ci diwaanu Kolda bi nga gisee mbir mi lan la la def ak loo ci xalaat. waaw daf ma tiital daf ma tiital lool ba pare dolli ma dolli ma tiital encore ci yeneen yoo xam ni euh, déjà am na fi am ci àddina bi am ci Sénégal am na ci yenn yoo xam ni sax ñëpp xam nañu wax naa ci. Mm-hmm. Euh, ci wàllu woote yonent euh, ak yonent bu dellu seek Isa bu ñëwaat ak yooyu yëpp am na lu ma ci jot a wax ñëpp xam nañ ci sama position mm-hmm. te euh, loolu ñu jàng téere yi xam nañ ni day dolleeku mm-hmm. maanaam xadis yi wax nañu ne mm-hmm. fii ak àddina di tukki ah ci axir zaman lañ nekk fii ak àddina di tukki ñuy woote woo yonent ak sax di woote woo yàlla dañuy gën di bari ba kooku ñuy wax masiixu dajjaal E, feeñ kooku nag moom mooy doon tomboxtalu e, fitna mais balaa boobu ñu bëri e, ay imposteur ni ko tubaab di waxee danañu mhm. woote ne ñoom ñooy yenent wala que ñooy yenent bu dellu si wala que ñooy Isa ak yu mel noonu donc lii dafa ñëw rek ko ci loolu xam nga fan la yàggul Sénégal am na benn as soxna bu fi mhm. génn di fi wax yu mel noonu mhm. man bokk naa ci jël position ñu coow ci kawam ngi sant yàlla depuis boobu kenn déggatu ko mais balaa moom amoon na beneen soxna boo xam ne xëy na xale yi yëguñu ko. Hmm. mais je crois que ci dans les années su ma jumu dans les années peut-être. Euh, hmm. quatre-vingt wala yu mel noonu. Hmm. benn soxna tamit bu fi doon woote yeneen Jibril la koy feeñu nangam ak nangam. gis nañ tamit euh, keneen temps yi day kii kooku nekk Saint-Louis Ali Cheikh. xaw ma Al di wax tamit deux mille vingt deux dana dana feeñ ne moom mooy Mahdi bi ñu doon xaar dugg na ci jaar na fi kon. yooyu yooyu yooyu ku ku am xam di gëstu. da nga ci tiit lool parce que da ngay ñëwantal euh, jullit yi nga xam ni xëy na ñëpp tolloo ñu ngëm mhm. dëggraayu ngëm ak xam-xam donc lii nii mhm. euh, bett na ma ci benn wàll bettu ma parce que euh, bett ma parce xam naa ni fii ak àdduna bi tukki mhm. yu mel ni dina dina bari mais tamit bett na ma ci Sénégal yu mel nii di fi di fi am daal te tamit li ma xaw a jaaxal mooy dégguma boroom xam-xam ak imaam yi rawatina ci gox yooyu te waxee Kolda ba Tamba kilifa diine yi nekk foofu am na fa ay euh, kan fóore ay kilifa diine yu mag yu fa nekk. bégguma hmm. euh, daal seen wax euh, ci wàll boobu donc loolu day tax ñu mel noonu ñu bàyyi leen population yi ñu def leen ne xam nga tam loolu lu koy indi. Hmm. Sénégal dafa am lu ñuy tuddee mandu. Hmm. te fekk loolu erreur la. mandu loolu warta firi jàpp sa ñaambur ci loo xam ne day yàq diine. donc loolu moom beneen question la encore mais daal lii lu doy waar la quoi. Mhm. voilà euh, tey jii bu ñu déggee bu baax a baax dafa mel ne maanaam mbir mi da nga jàpp ne est ce que du mbirum sos la daal. est ce que du mbirum. sos. Ah, sos la kay non sos la sos la fitna la. Mhm. Euh, waaw sos la fitna la. Ah, du du du lu bees ci lislaam gis ci temps yenn sasalam ci boppam. Mhm. Euh, kon waxuma la yeneen temps xoolal yenn sasalam maqaamam. ah ak ak ni ko yàlla may ak ni mu mel. Mm-hmm. Euh, ci wàccuwaayam mm-hmm. ak et cetera kon ba muy dund bu fekkee nit ñi euh, seytaane ngemb na leen ba ñu sañ loolu waxuma la nag bu dul dund ba muy dund am na ñu ko doon woote ku mel ne Musaa ibn al-Kazzaab mm-hmm. euh, waa yeneen la woon ñëpp xam na temps yonent sa salam mu ngi doon woote loolu ginnaaw bi yonent sa salam génne àdduna Aboubacar xeex na ko dégg nga ba moom tam wax ne alquran am na alquran bu wàcc ci moom Euh, Aboubacar yónnee ko ay kii ñu xeex ko xeex bu métti sax. Mhm. ñu bëri ñu mokkoon alxuraan ci euh, xeex boobu euh, la ñu faatoo. Mhm. donc gis nga gis nga dèjà ci jamono am na beneen jigéen bu ko doon woote itam ci jamono jooju. Mhm. kon am na ñu ko fi woote ci àdduna bi fële mouvement boobu ñuy wax Ahmadiyya. nekk nekk Pakistan. bëriwuñu Sénégal parce que ay anglo-saxon lañ. Gambie lañ doon bëri ay Nigéria ak ay États-Unis Angleterre. ñoom tam dañuy wax ne seen waa ji mooy Isa bu dellu si. moom dafa boole mooy Isaa bu dellu si mooy yeneen bi mooy Mahdi donc yooyu mu ngi ci àddina bi tasaaroo fi donc euh, donc lii daal euh, sos la sos la lu tax sos la. Mm-hmm. parce que ci l'islam buñ ko delloo ci texte yi. Mm-hmm. Euh, ijma am na jullit yëpp jubóo leen ijma am na lu dul lu dul ñii di ko wootee ah. Mm-hmm. que ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xaatamu nabi yi kon nag comme mooy xaatamu nabi yi en même temps tamit mooy. Euh, mooy le dernier euh, messager parce que pour nga nekk rasul foog nga nekk nabi. foog nga nekk nabi nga nekk yonent yàlla di la wax yu nga mën a doo ko nekk donc rasul mooy ko am risaala. Mhm. donc mën nga nekk nabi te doo nekk rasul mais mënoo nekk rasul te nekk ko nabi. kon mhm. ñun sa sànq bu alquran waxee ni moom mooy xaatamu nabi yi. Mhm. walakin rasulullahi wa xaatamu nabi yi. wa xaatamu nabi yi kon moom mooy le sceau des prophètes. kon jeex na loolu jullit yëpp juboo nañ ci euh, alquran tam jullit yëpp juboo nañ ci ne. alquran wàcc na ba jeex tàkk diine l'islam mat na al yawma akmaltu lakum diinakum ba aaya bi jeex mhm. kon su nekk ni ko fi indi wax dama dégg ñoom ñuy wax ci ñoom naan euh, ki ñu suñu suul seen waa ji dañ koy wër loolu di ko wër nan la koy wër kaaba gi di di julli ci pulaar euh, waa ji am na doon téere bu mu tuddee xaw ma lan tur bu xaw a doy waar mhm. euh, et cetera loolu yëpp jullit yëpp dañuy juboo ci ne loolu sos la mhm. ak ki sos loolu seytaane daf ko ngemb muy réeral ñeneen ñoo xam ni ñoom seen bopp sosu yëf yi waaye daf leen réeral ba ñu ba ñu gëm loolu. Mhm. Euh, tey jii ni comme ni ñu ko waxee maanaam gox ba nga xamante ni fa la loolu daal di fàqee ko lan ngay wax ñi nga xam ne ay njiit lañu ñoom tam nekk ay ñun ñoo xam ne ñu fës lañu jëm ci wàllum diine. waaw mooy mooy li ma wax sànq gis nga suñu deful ndànk ci euh, affaire boobu xam nga par exemple naan am na fu mu nekkee dëgg ak fu mu nekkee faiblesse. Mhm. Euh, ku nekk nañ ko bàyyi ak ngëmam. Mhm. gis nga loolu. am na fu mu nekkee lu baax mooy ku nekk warmaal sa morom. Mhm. mais loolu bu fekkee tam dañ koo jàppee mhm. ne bu kenn dénoncé loo xam ni dafay weddi pas-pasu l'islam mhm. di réeral jullit yi loolu tam c'est très grave seytaane dafa bëri pexe te Sénégal gis naa ni seytaane réew mu nekk rek ak seytaane fi muy jaar ci ñoom jëmm bu nekk tam ak seytaane muy jaar ci ñoom gis nga am na jëmm joo xam ni seytaane xam na ni mënu koo teree julli am nga ko fu mu koy jaar ci xaalis wala ci jigéen wala ci nguur ak cetera am na koo xam ni seytaane xam na ni xaalis bu fi dëgg mais ku bëgg nguur la te bëgg feeñ seytaane foofu la koy jaar kon seytaane dafa bëri ay pexe mhm. donc Sénégal fii bëri na ci pexe yi nga xam ne seytaane yi fii lay naxee nit ñi mooy euh, mandu leen euh, ku nekk luñ ko daay ngëmam mhm. ba nit sañ na taxaw ne maa ngi yàlla wala ki ma gëm yàlla la wala maa ngi yonent et ñu ne mandu leen ci Mm-hmm. parce que yàlla mooy maye lu ko neex gis nga seytaane fu mu jaar Sénégal yi ak mm-hmm. sénégalais bi mm-hmm. loolu moo tax ñi am sañ-sañ doo toog léegi presque un an amul kenn ku génn fii góor wala jigéen daal ne man maay yonente bi maay isaa bu dellu ci maay nangam ñu ne waa man bu leen kon loolu erreur bu grave la erreur bu grave la donc euh, kilifa diine yi seen responsabilité mi ngi nii wax dëgg yàlla mooy que dañu war a protéger euh, la foi des des masses parce que masses yi ñoom ñëpp mënuñu demal seen bopp ci taxi yi Euh, xam euh, yenn sew sewaan yi te gis nga façon yu woote yi mhm. toujours day am ay sew sewaan yoo xam ni mhm. seytaane foofu la leen ni foofu la leen ni mayee doole parce que euh, seytaane xam na ni bu leen ne wax leen nit ñi bàyyi leen julli bàyyi leen wor ak yooyu ñu ci julli bi dañ naan li moom du dëgg kon mhm. mais nag bu leen wax loolu gis nga da leen wax ne waaw julli leen mais mën ngeen julli ci pulaar waaw woor leen mais woor leen léegi janvier et cetera su ko defee nit ñi ah, waaw comme ah, kon xëy na dafa am rek lu lu ci leerul donc yu mel noonu mooy danger bi Mhm. kon léegi borom xam-xam nag seen seen seen responsabilité mooy leeral yu sew sewaan yooyu nga xam ni ñii di woote di faux imposteurs yi di woote eh, ay caaxaan ñu leeral ko ba mu leer nañ avec pédagogie pour que jullit ñi xam fu ñuy teg seen tànk am na ñoo xam ne nag yàlla na ci yàlla musal kenn mënul dara si ñoom lu ñu gis gëm ku ñu gis topp kooku ñoom kenn ñooñu moom kenn mënul dara si ñoom mais borom xam-xam yi nañ jël seen responsabilité mooy ils ont la responsabilité euh, loolu moom buñ ko deful wàcc nañ seen ànd voilà au delà de artu ak euh, kii lan la ñu mën a xaaral li mu nekk taxawu imam Kanté jëm ci maanaam ndogal bi wala ci wax ji ni mel wala ci jëf euh, maa ngi dajale information fi mu nekk nii mhm. parce que man au départ dama ko jàppee woon rek euh, loo xam ne doon naa gis ay vidéo yu circulé gisoon naa benn vidéo Niger mhm. ay nit di julli ci Awsa après ma gis tamit Mali ay nit di julli ci Bambara mhm. je pense voilà xaw ma fan ak ma gisee loolu ñuy wax affaire mën ci nangam ñu joxe ci ay yu leer Hmm. julli ci arab lañ koy def alquran nangam nangam ñu jeex. Hmm. mais nag lii feeñ ñu Kolda moom. Hmm. Euh, li ma ci commencé jot ci information dépassé na rek affaire langue parce que ñu ne ñoom peut-être en cause dara ci les piliers du dogme musulman wala de la pratique culturelle et cetera. wala même de la foi parce que affaire yonent ak yooyu day dugg ci foi. ñooñu moom euh, remettre en cause quelque part loolu alquran bi lañ jël firi ci ay awsaak nangam nang et cetera bon mais ñii moom li ma ci jot a gëstu ñu ngi may yónnee ki ko doon woote faatu na léegi mais kooku moom dafa gëm ne moom mooy xaw ma Isa bu dellu si eh, yàlla wàcce na benn téere ci moom bu mu jàppee téere alxuraan ci pulaar. Mhm. dégg naa ci suba sax benn waaye di ci wax ba wax tur bi sax jam-jam xaw ma lan la ko tuddee. Mhm. et cetera et cetera kon lii moom. Mhm. problème bu grave la dépasse na rek affaire langue du rek bu ñuy wax ci pulaar. ak affaire julli ci pulaar c'est un vrai problème qui heurte le dogme musulman dans euh, dañ ko war a leeral donc maa ngi jot ay information Mhm. damay bañ a def sortie après ñu may reproché que oui da nga wax ci affaire bi euh, affaire ni jaayam moo waxoon ni yaayam waxul loolu xam nga Sénégal yi détails yu lañ bëgg. c'est vrai mhm. moo tax voilà te nag boo boo leen xale boo leen xasee ubbi détails yooyu rek. Mhm. day affaiblir sa argumentaire parce que même boo waxee dëgg quatre-vingt-dix-neuf pour cent benn waay ji waawaaw ne waaw waaw euh, dafa fàtte ni jaayi waa ji moom Tamba la dëkk ni ñu nekk ci affaire Tamba boobu bàyyi bàyyi problème essentiel bi mm-hmm. beneen boobu laay bañ a def mais maa ngi dajale mm-hmm. maa ngi dajale information yi mm-hmm. te bu ci kanamee rek ci fan yi incha allah euh, dinaa ci def sortie dinaa ci bind dinaa ci def euh, vidéo ba pare attirer attention réew mi yëpp ci ci wàllu boobu voilà imam ñu jaajëfal la di jégalu aussi ci dérangement bi amul amul benn dérangement amul benn dérangement rawatina lu mel ni. Mhm. jar na jar na effectivement ngeen woo ñi nga xam ni yaakaar ngeen ni. Mhm. mën nañ ci indi ay leeral. Mhm. Euh, lépp ñu def ko ci dal. ak euh, ak argument yu leer. je crois que réew mi fi nekk nii euh, soxla nañu loolu jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf.